report élection présidentielle bi ñu jàppoon le 25 lu mu nekk nag situation boo xamante ni ku si nekk si ñun am nga si sa xalaat am nga si sa gis-gis ñuy ñaan rek jamono bi ñu toll nii situation fi ñu toll nii si suñu dëkk fii la ñuy xàmmee réellement les leaders et les responsables les vrais responsables. Parce que leader là, leader là, responsable là, responsable là, là on a l'occasion de prouver au Sénégalais won leen ni ñun vraiment ay vrai leader la ñu parce que leader mooy mën a jël décision bi mu war a jël pour l'intérêt national même bu fekkente ni moom du du doon lu ko gënal. président Macky Sall situation bi ñu toll nii ba mu jël décision wu élection bi ñu waroon def le 25 février ñu toxal ko ajandiku ko ba ñëpp toog waxtaan. mën na dem si élection yoo xam te ne bu ñu paree bu ñu génnee élection yu mucc ay lay doon kenn du am looy laam-laamee si résultat yi ndax loolu nag li ko indi mooy ki nga xamante ni tey moo war a joxe résultat élection yi ñu jiiñ ko jiiñ bu rëy bi ñu ko jiiñ boole si jiiñ ko ñun ki nga xamante ni mooy suñu candidat bu suba juge boobu di conseil constitutionnel bu nee suñu candidat boobu moo gagné te nag ñun bu ñuy dem si élection dañu dem pour gagner demuñu pour perte ndax su boobaa kon dañuy toog suñu kër duñu dem campagne yi duñu dem pour gagner mais bëgguñu ñu gagner ba pare ñuy takkal suñu gañee parce que amoon na ñu doon laam-laamee ni suñu candidat ak conseil constitutionnel bi am na lu ñu sëkk président ni nag comme situation bi toll na foofu nañ leen toog ñun ñëpp ñu waxtaan nañ leen toog ñu waxtaan ñu xool ban solution mooy solution bi gën a baax pour que bu subaa résultat yi bu ñu ko joxee kenn du am dara loo si xalaat man nag si sama xel bu mën naa jàpp ne président ñaari solution la amoon malgré li ñu jiiñ conseil constitutionnel ak suñu candidat mu ne nañ dem rek man pare naa dama war a dem wala mu ne nañ leen toog ñu waxtaan parce que lii bu ñu ko waxtaaneewul bu subaa mën na indi leneen si dëkk bi may fàttali rek suñu mbokk yi ni bëgg dëkk yi ñu wër yépp am li ñu am tey muy pétrole gaz or bi ñuy gis chaque jour dëkk yi ñu wër yi ko am yépp taal nañ leen boole nañ leen jaxase leen ñu nekk di reyante pendant ce temps là li ñu amoon ñeneen ñëw di ko tibb di ko yóbbul seen njaboot ñun suñu njaboot yi toog ku nekk di jiiñ sa moroom man maa am dëgg walla man maa am toor jamono bi ñu toll nii duñu weesu si xëccoo man maa am dëgg man maa am tort man maa nekk ci opposition man maa nekk ci pouvoir dañu toll foo xamante ni dañu war a am ñun ñëpp li tubaab bi naan un sursaut un sursaut républicain un patriotique ñu war a mën a toog ñun ñëpp waxtaane li nga xamante ni ñoo ko bokk parce que bu ñu ko waxtaanewul leneen moo si juddu loo xamante ni bu ëllëgee si biir ñun ñëpp ay boole ñàkk. bi ngay wax ni est-ce que dafay wane ne président dafa am leneen lu mu xam lu leen su wàllu loo xam ne xëy na askan wi xamuñu ko ba tax tey mu boole leen jël décision. xam nga président li mu xam li ñu xamul ñun bari na trop ndax man mii rek si li ma nekk di liggéey rek chaque jour ñu am ay information yoo xamante ni xëy na tey bu ñu ko doon teg di ko wax Sénégal dinañu comprendre lu bari. mais dafa am na niveau de responsabilité yoo xam te nit bu si tolloo du loo xam rek danga koy jël teg ko mais ak sa akulaay taala yow dinga faxe def ba information yooyu nga indi si solution boo xamante ni mooy arranger ñëpp président Macky Sall kenn gënu ko bëgg suñu dëkk bii kenn benn sénégalais gënu ko bëgg Sénégal décision bu mu jël man am na certitude que. il le fait pour l'intérêt majeur de notre nation daf koy def juste pour préserver suñu stabilité suñu équilibre et que suñu doom yi suñu sët yi mën na profitoo si li nga xamante ni moom lañu suñu borom may ñu bañ nag war a am fulla am fayda Sénégal ba yeneen dëkk yi ñu wër yu mel ni ay Libye wala yeneen dëkk yi am ay pétrole gaz yépp tey gis nañu fi ñu toll ñi àndoon ak Kadhafi ak ñi contrôle Kadhafi tey ñoom ñëpp a yem seen dëkk bi jaase nañ ko yàq nañ ko ñoom ñëpp ñu perte seen doom yi perte seen njaboot yi perte pétrole bi ñu amoon gaz bi ñu amoon kenn xamul fu mu jaar Kadhafi daan na wax ni dafa bëgg ubbi banque africaine de développement qu'il avait déjà des réserves d'or prêtes kenn xamul or boobu fu mu jaar tey ñaanoon ak moom ak ñi ko contrôle ñoom ñëpp a boo bool booloo perte ñun nag war nañu mën a am jàngat si yooyu pour am fulla bu nii problème bi ñu am Sénégal ñun sénégalais yi ñu toog waxtaanee ko bañ a may kenn muy jóge ci àll ba di ñëw di ñu booloo di ñu boole ñuy xiiroo ko ngaayoo di dóorante suñu biir ñoom ñu ñëw di tibb li nga xamante ni suñuy doom ñoo ko moom suñuy sët ñoo ko moom di ko yóbbul ñoom seeni doom ak seeni sët pour ñu jariñoo ko pour que ñun ñu continuer. dama am benn phrase boo xamante ni dama ko yàgg wax et je vais le dire en français pour terminer l'Afrique est le continent le plus riche au monde sont les plus pauvres loolu dafa jot pour mu jeex te lii kay jeexal mooy ñu yeewu bañ a nangu ñu ñuy boole à chaque fois bu ñu tolloo sa situation yii Sénégal yàgg na am élection mais élection yu méttee nii gëj na fi bu fi mësee am tamit man fàttaliku ma ko te loolu yëpp li ko indi du dara lu dul ñi nekk si biti teg seen bët si suñu dëkk bi di fexe nu ñuy def pour boole ñu. pour ñëw ñoom jël li ñu moom yóbbul ko seen i njaboot war nañu am fulla am fayda ba loolu am si yeneen dëkk yi ñun ñu bañ ko nangu.